bee ngi ma ngi koy waaj Sitor Ndour la le grand arbitre kenn du ko présenté ci réew mi combat bee ngi noonu dox ci diggante Onga Ndiaye numéro 2 ak. Seck ak Boy yaa wóor. <laughs> kenn du yow bàyyi jiile. ndeysaan maa lay màggal bu baax. borom wasaare. grand théâtre TV. loo wasaarewul baaxul bàyyi jiile. yaa ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi. dox ci kan ak kan. diggante Ongué numéro ak booy Seck. kan mooy Ongué moom lañ jàkkaarlool moo ngémboo ngémbu vaccin bi waaye arbitre àtte na lu xew. am na lu xew. waaw. ndeysaan Ongué Ndiaye. avertissement Boy Sène wala am na avertissement te dara xewagul. arbitre génn seen diggante ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Ongué Ndiaye moo ñu wan kanam moom lañ jàkkaarlool. Boy Seck moo ñu wan ginnaaw moo ngee moo ngee ma lu weex la bàyyi ji Boy Seck ak Ongué Ndiaye numéro 2. ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo di xoolante ci bët ceer. waa di xool ci bët di jàkkaarloo ci bët. di leew moto bu diib ñoom ñaar. waaye kurpañ demagul congu amagul bàyyi jëli. waaye diggante combat bi dafa mel ni fausse garde la ak garde normale. waaw fausse garde ak garde normale bu ñu xeexee nga gis musiba. bu ñu jàppante nga gis jël bu gaaw a bàyyi jëli. ndax Ongué Ndiaye mi li ma xamoon ci moom bu deñul bu jàppee mu jeex bàyyi jili dox na ci kawam. ñu xeex. mbaa kaawo du am. kaawo da ngay raak. koy door. rokas rokas. njaay. rokas baaru daan da rokas kaawo. ci per da ngay njaay mi loxo yi xor na. laay la bàyyi jili. ceer ma ngay door waxoon nga ma ko. da koy takk de. da koy takk Onga Ndiaye takk na ko. da koy takk da koy bij wala da koy bij. ndeysaan Onga Ndiaye lu mu nar. wala xaatar bi tegal 16. ndeysaan Ongué Ndiaye Boy Faye ndeysaan ñoom ñaar jàppante na ñoom ñaar ndeysaan Boy Seck ak Ongué Ndiaye moo féete à droite ndeysaan Boy Faye attention da biij na ko daan da koy daan daan seer waxoon nga ma ko dool doxul jaamu waxoon nga ma ko xale bi xam naa ko bàyyi jili yaa wóor waxoon nga ma ko xale bu jàppee mu jeex yaay lamb waxoon nga ma ko maa fekk xale fu mu ma bari bàyyi jili yaa wóor <laughs> ndeysaan Ongué Ndiaye numéro 2 daan na ndeysaan daan na ko Anga Ndiaye daan na ko ndeysaan daan na ko oh waaye xale yaa ngay ñibbi ku sa mbër daan nga forcer bagage wéy wéy la faxasu